di leen wax ni ku ne xam na ni dëkk bi ab ragal yeewoowu fi fii ay boromi fit ñoo fi nekk ay boromi jom fan yi nag dégg nañ benn waay boo xamante ni chaque jour bu ñuy wax Ousmane Sonko dama koy wax nag sama xarit la du ma ko nëbbu mais lu muy def ni daf ko war a bàyyi nit ñi bu amee luñ la rusee da ngay xam sa bopp moom du kenn du lenn. ba saa bu jógee rek woote mortel combat mortel combat booy kaay leen ñu dee ñun dañu bëgg a dund liggéeyal Serigne Touba jaamu yàlla pare wuñ pour dee. taal dëkk bi léegi bu ñu ko taalee pour lan dëkk yi tàkkoon yëpp ba léegi ma ngay sax ba mu ba mu fayet ma saxaar ba léegi fayagul léegi mu wooñu ci taal dëkk bi pour lan la. élection 2019 bi ñu toog kër président Idrissa Seck muy woote pour ñu génn ci mbedd mi maa ngi taxaw man li ma gisoon rek mooy dem ci biti xeex. Idriss Seck dafa geestu yam ci man ni ma ku la wax ni yow boo génnee yow ak Ablaye Seck doomam mu ma ku leen ni yéen ñaar ñi du yéenee njëkk ñàkk seen bakkan am réew ku ko bëgg a defar doo ko yàq loolu dafa am solo ba tax na lim leen ti woo bu leen ko wuyu surtout yéen ndaw ji yeewu leen ci xam ni nit ki li koy jariñ liggéey moo koy may waaye kut ko kut damaa bëgg a jël réew mi bu ma ci mënta jot dama koy taal mais loolu moom yëfi yë yëfi goreet yi ak ñàkki teggin ak ñàkk a wormaal mag ñi mënu ko weesu. fii la ñëw sëñ Mountakha am lu mu ko wax ba mu Mountakha di daata daaneel mënu ko déet ñi faatu ñëpp ay murid lañ loolu mooy lan mooy li ngay wax dégluwuma ci dara sa waa kër faatu mais waa Casamance kenn faatuwu ci. moom nag mënut a bàyyi ndeyam ak bàyyam fu la ca Casamance ñu ne xat gi lay ne mënu nañ leen taal Ndakaaru <laughs> mais loolu ku am xel di xalaat sax xam ne lii xel nangu ko. te pourtant ñoom ñi koy jiite ñëpp kenn ku ci nekk yaa nga làq sa njaboot fu nga xamante ni yàq eggu fa boo leen xoolee ci réseaux sociaux di ngeen gis ñoo xam ne ñàkk nañ seeni i bëñ te loolu leen ko yóbbee ñi ñàkk seen i tànk ñàkk seen loxo gis ngeen ab alkaati boo xamante ni ci la ñàkkee loxoom ci lan yaa ma tëddeeg tëddeewu ma la mais loolu loolu loolu gàcce la dafa ruslu bu loolu jàllee nag mu am benn waay bu ñuy wax Abdou Abdou Doli ndax ñun dañuy dañuy dañuy màggal sant wi di màggal baayam muy sëñ Baara Doli ba duñ ci egg moom Abdou Doli la ñuy wax. nga xam ne c'est un fils de pute bu nga xamante ni tekkiwul dara bërki démb la président Macky Sall recevoir ay sëtu sëñ Touba. te moom nag nee na bépp jigéen bu dugg ci palais bi wax ci wax ju ñàkki teggin mais dañu wax ne nag doom ja ndey ja ñu ko wax mu nga mer sa ndey baaxut. dama yaakaar ni xëy na loolu muy wax ci ndeyam la ko gisee ba tax moom mu taxaw naan ku dugg ci palais bi. Macky di wax ci wax ci ñàkk teggin joo xamante ni ca Macky Sall dafa am njaboot comme ñëpp te lépp loo bëggul ku ko wax sa yaay waroo ko wax yaayi jàmbur loo bëggul ku ko wax sa baay waroo ko wax baayi jàmbur moom nag saa bu xëyee ba ngoon jët di rusloo waa Touba lay def barki Demba la taxaw fii di attaqué sëñ Mountakha ñëpp gis nañ bi corona bi nee dugg see ñuy coow naan am naag amul sëñ Mountakha woote Porokhane mu ne sëñ Mountakha li mu def tegu ko fen ñëpp ko fekkee waaw mais sëñ bi nit ku mel noonu xam nga nag dañuy wax ni dof na leen ñaar boole na la jur mbaa nga jur ko boo ko juree am nga problème ndax du ngeen tàggoo bu la juree am nga problème ndax du ngeen tàggoo mais lu dul ñaar loolu waroo seq ak moom lenn dof nag mooy ki solu yéreem nekk ci biir nit ñi c'est ça bu waxee ñëpp dar seen gémmiñ ni ko sëñ Samba di waxee dafa am loo xam ni ñooñu dañoo feebar mais dof day ne ci biir nit ñi di solu ca saa bu waxee ñëpp tiit kooku mooy Abdou Doli di leen wax ni gédé gii moom ku ko fi gis tojal gatam <laughs> fii ci gédé ku fi gis Abdou Doli di fi taxawaalu xottil gatam ba ci noppam ndax ñun lépp loo am àndut ak teggin nekkuñu ci. warmaal jigéen ñi warmaal jigéen ñi mais sëñ bi wax ju ñaaw joo xamante ni ñaata ñaata jigéen la Macky Sall di recevoir ca mu ni képp ku recevoir Macky Sall ku Macky Sall recevoir ngay jigéen rek am na lu la def. ñu ngi lay ñam ci suuf. waaw moom xay na loolu yaay ma ko xam jàngal ko ko moo tax mu di ko def dama ni wax ju ñaaw niñ koy waxee ñëpp a ko man danañ am yar tegg teggin nag waaye nag am na foo xam ne ku ñu fa woo ñu wuyu la foofu di leen wax ni à part de aujourd'hui ñun wàcc nañ ci terrain bi man nag bi ma ñëwee ba léegi ñu bare ngi may woo invité nañ ma ci terrain fu ne mën leen sama kàddu du ma ko yëkkati fu dul gedee lu may wax gënee laa koy commencé bu ma ko waxee ba pare nag feneen fu ma a waxee dinaa ko waxee mais di leen wax ne daal sëñ Mountakha samp dara da ko contre lépp lu sëñ Mountakha samp saa bu xëyee ba ngoon jot moom da ko contre ndax président Macky Sall nag ñun dafa am lu ci sëñ Mountakha wax yéen a dégg Alaaji Mbàkke yu fay mi nga xamante ni gis nga dëgg yàllaa ko moom Mbàkke yu fay képp kuy murit ameel nga ko ngërëm Masaalikul Jinaan ñëpp xam nañ taxawaay ba mu ci am ku àttana yëkkati li mu yëkkati di ko def ci jumaa ji amoo lenn lenn loo koy wax lu dul wax ju ñaaw wax ju ñàkki teggin mais sëñ bi kii mooy bu fi daje woon ak sëñ Tuubaa bu wootee da koy weddi ndax ki fi sëñ Tuubaa bu dee bu waxee nga weddi ko boo fi daje woon ak sëñ Tuubaa bu waxee nga weddi ko mhm. kooku mooy Abdou Doli di leen wax baayam ku baax la sëñ Baara Doli nekk na fi député politique ba bàyyi kenn déggu ko ci lu ñaaw mu am fi ay magam muy moo Modou Bara Doli ak sëñ Cheikh Mbacke Bara Doli kenn déggu leen ci lu ñaaw sëñ Cheikh Bara Doli bu taxawee ensemble ñëpp dañ koy naw kenn du ko gis ci lu ñàkk fayda kenn du ko gis ci lu ñàkk teggin mais moom nag mu mel ni benn sëb ci cin kenn xamul fu mu bokk moom daal mbiram jar naa seetaat très franchement man de man daal kooku dama sax bëgg dama bëggatul sax wax ci moom ndax du nitu dara waaw yéen mbooloo mi nag. maa ngi jégaluwaat di jégaluwaat di jégaluwaat yàggaay bi waaye di leen wax ni pare nañ pour ñu ànd liggéey lépp luy ngeen xamante ni pare ngeen pour def ko man ubbi naa samay buntu ñëpp.